maa lay fay soxna si di la siyaar di len balak te di len baalaq di ñaan yalla mboolu du jéggal di siar bu baax sama kalifa sama buntu joonu ci yoonu Cheikhul Khadim muy Cheikh Modou karam bak ibnu serigne Kosso sulu de ko ñaanal fon wu guddu way di ko ñaanal gu wér waye non la koy joxe samay nuyoog sama ziar yëpp mu joxal mo sama seen sa ba sëñ basir mbake Anta ba cheikh Muntaxa mbake mi nga xayantene ñepp nga ñaan mu yag fi te wér yalla na sunu borom dal ñu may sant bu baax mi nga mom la andal di sama kalifa di sama jawrin waaw yaa ngi waa ngi waa ngi tudd nga ku baax tudd nga ku sell tudd nga ku jamono yittewoo ñoo ngi koy waxtaane itam fi nu ko war a waxtaane muy weeru koor sëriñ ko soo suloo doomi Cheikh Mouda Balla di sëtu borom Daaru Mooti sëriñ ko soo suloo maam tenu borom Daaru Mooti rakk Cheikhul Xadim moo ko sàkkal aw tur moo ko uuf tudde ko boppam Ceerno la tudd moo tax may faral di wax naan turu sëriñ ko Sulo yàlla ànd na ci yonent bi ànd na ci sëriñ Tuba ànd na Ceerno ànd na ci ndax Cheikhul Khadim moo waxal boppam ne Ceerno borom Daaru Muxti musta wuuteeg man ci lenn nag du bi mu ndaw ak bi magee musuñoo tàggoo benn yoon it kon bu ko sakkale aw tur Xadim waxoon na ne carnu lum ne maa nga ca Sëriñ Tuubaa it waxaat ne moom ak bëggam ak bëgg yàlla yem kepp lu bëgg loolu la yàlla bëgg gannaaw ba mu jëlee ak bëggam nag jënd ko bëggug yàlla yàlla nangul ko ko nag ne ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko loo bëggate lu laa bëgg mu njëkk koo bin moom Cheikhul Xadim biatu muraadi bi muraadullahi la waxoon jël naa sama bëgg jënd ko bëggu yàlla bako suñu borom nango nak ne ko legi ahmadu mu ne ko labbayka rabbi mu ne ko yow loo bëggati bëgg nak ko Cheikhul Khadim doog waat muraadu qalbi ya allah sama namel ko xol moy namel gu yàlla waye la tax ma ci iduna Ahmad bëgg na ci fofé la Serigne Touba wax ne maanaam li ma bëgg mooy bëggalu Seydina Ahmad sallallahu alayhi wasallam lima li bëgg man ahmadu moy mooy lo rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ma amasat rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon na gannaaw Cheikhul Khadim ci bopam waxat ne Cerno mustawutek man kon tour wi bi cheikhul khat bi ko maam Cerno tudde Serigne ko soslo fek na djubuna ci Serigne Touba ak sayyiduna Muhammad ak yalla subhanahu wa taala koku moy Serigne ko soslo jambaro ngok ñayu xare ngok murid sadikha ngok ko xane ne mosta yëkkati jéego te du ci ndigal lu mu sa wax sunu borom def ko lu waral lolé bëgg Serigne Touba ga tax xam nga li nga xane mo dalun daloon xaadim ru Seydina Muhammad dal Serigne ko soslo ci wa kër khadim mustafa da ne هرقت في بحر محبة رسول وأرتجي منه رداء والقبول لبنا تجيجك برسول الله صلى الله عليه وسلم ينكو سيرين توبا لطخ أورا اللولو من ما يأكار تياري مبير رضا نغرم اليالا نغرم اليالا مو أب أدنى أقلي تبير ينكو أقلن من أكو خبول نانغو لو خمنا لما دفت سنبان أن جاك من كو كي مو سيرين كو سسولو ممشي مودا أبالا من غير خيانتني مو يبرم بوجفه wa serigne ko Daaru Muxti la gane àddina 1934 ci diggante wajur woo xamante ne mooy taawu maam Cerno Cheikh Modou balay Balla wajuram ak soxna Asuloo soxna Asuloo boo ko dàqee day diñ bi am ndam lay ñibbi waaye xam nga mam maam Cerno maam maam maamorante sali day ñibbi waat ci balaak maaram kon sëriñ ko sulo mbokkum senegal gépp nag ñëpp la bokkal amul kum bokkalut te boo ko daqee dañuy indi kokki ndax sunu waat Issa Diop boo ko daqee muñu waat kokki kon sëriñ ko sulo borom bu jafe borom sarsara borom ndogo yi borom mën naa ma mën naa gauche mën naa droite daanaka xam ne man gauche la droite la alaaji ko sa sulo kooku nag bi mu génn àddina daa tegu ci ndigal ndax Serigne Touba daa waxoon ne bokk na ci li tax sunu borom di nangu jëf yi moy bul jëfëti lenn ci lal tawul ndigal wala Serigne Touba bi te mbirum Serigne Touba waxna ba tay ni du xalaatu doomu adam kitabati min lawh rabbi tunqalu la yamtari fi an ibn yaqilu foofee le Serigne ko so tegon tegon tànkam top way juram Cheikh mouda Abal ci lépp lo xamne digal nako ko mu ne ca waye Serigne ko solo mbollem jàbbootug mam tierno mbollem jàbbootug Serigne Touba mbollem um islam gep Serigne ko solo lenal ëmbalan yiw daa sukkandikoon ci mbirum serigne touba mom serigne koso damay faral di wax naan mom da deug serigne touba xam nga nit jàng na waaye am ak dégg mo gën wér serigne koso la deug serigne touba la siwul khadim waxon ne digal na len yen murit yi kep ku nan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu bu len ko defam non jàppee leen ab xarit fa la serigne koso ne woon fala tuaadu man raaytum faahu yuxruju laa ilaha illallah moo tax sëriñ koso suloo jëloon addina gépp Sénégal gépp mu def leen bokk eh, soxna si xanaa xamoo ne tarixa yi tiijaan da xaadiriya di laayeen di ñaseen xataa baytulaay sunu sërif yii sëriñ ko sosuloo bu nu mësaa jóg këram la ñuy wàcc fii ca daarul moxti ba sarsaara ba ndakaaru gii burgi ba fii laa numéro huit ku mës a jàq kër ko so ngay jëm xam nga lu waral loolu sëriñ Touba def noo jàngal njàngal moo xayante ko ko topp doo juum te koo yar kooko du juum da waxon ne mom siwul khadim ñi nga xamne ño fi ne yor ay werd nanu xamne werd wird yooyu teeng la kep ko top werd yoo te ko di nga am gëremal yàlla sëriñ ko so xamne ne bamba wax le mu jël tànkam tek ko ci lola fa kullu wirdin yuridu murida li xadratil walan ahida sawa intama ila jaylaani aw intama li ahmada tijaani aw li siwaaxuma min al aqtaabi is kullum qatan ala sawaabi loola sëriñ tubaa jàngale sëñ koso xam na ne kon lii mbax mbinum sëñ Tuubaa la maa ngi koy fàttaleku at ma sëriñ ablaat ne bëggatumaa dégg jàkka yi murit ak jàkka yi tijaan anal masaaji dillaay at moom mais jàkka bu ne ndakaaru sëriñ koso yóbbu na fa ay tappe jël imaam ba am lu ko warlool wax leen ne ba ba may faatumaa leen yor kookee moy sëriñ koso suloo moom Cheikh Moda Balla moom maam Thierno nga xayante ne mooy borom bu jafe. di nga xamante ne bu ma saa aj bëtam boobee wàcc ko lu waxee la def ko soxna si moom sëriñ koso boo tuddee weeru koor soxna si danga may bëgg a yóbbu moom ni mu doon dundi weeru koor yàlla da koo nangu ni mu dundi weeru koor sunu borom da koo nangu bu nu ma saane wéeru wa feeñ fii ci ndakaaru waxtu woo fi ñëw day mel ni tabaski boo demee daarul mooti naka noona boo demee sarsara naka noona lépp lu mu am la siwul khadim don non séntu wer wi diko tadagal diko way serigne ko sofal tegon ya khayra dayfin qad ata bil bil bishri wal madadi ahlan wa shahlan wa tarhiban bila adadi non la ko serigne Tuubaa don seeroo wer wi nan sama xarita ngok sama soppe ba ngok exil entre ubina la buntu yep man serigne Tuubaa serigne koso foofa la tegon tànkam mom wer wi dana caa li mu daan dépassé weeru koor dan daan toog ba ne ndax sëriñ Koso ndax bu weer wi jeexee dana amati lan lu moom joxeem dit ma daana wax ne man suma ma nit di ñëw damay jàpp ne daa ko war a jox waaye warumaa jël ci moom ab dërëm waa rawatina ak weeru koor ndax waxoon nu ne weer yi weer yëpp weer yàlla waaye weeru koor nag mooy weer wi nga xamante ne moo gënal a sew mu li waa na a si bi sëriñ Koso asuloo ci julli trois heures du matin boo toogee ci suuf da ngay maanaam muy naafi la bu noppee quatre heures demi sëriñ ko sama nga ci alquranul karim nga xam ne mooy xaritu cheikhul xadim yaa kitaabal karimi anta xalili wa habibi wa xëbla kunta tabibi loolu sëriñ ko so defuñ ko xarit ci weeru koor xasida yi maa ngi fàttali ko 1996 ma ne foofu ci suuf ma dégg muy jag jas bu fi ma ne ci jàkka ji damaa mujj daanu moom mu ne ci kaw ndeke moom day drus waaye yëg na ne dem na te doon drus waaye daa jékki-jékki di yëkkati ngir bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ ko sol léppam weeru koor la léppam lislaam la léppam yoonu sëriñ Tuubaa waaye léppam lu rafet la Cheikh Kosso Aslo soxorut iñaanut siisut Cheikh Kosso Aslo moo mën na bot ñëpp am na am am na sunu bokk ahlul kitaab yoo xam ne sax ña nga daana ñëw ca kër ga sëriñ Kosso di faj seen seen aajo ci weeru koor moom weeru koor daal jàpp na ne moom képp ku ko ne jàkk sëriñ Kosso la wala dimbale ci zaahir ak baatin bés bi nu koy màggal mooy bés boobu nga xamante ne Cheikh Modou Abal la jàmbaar ja borom ndombok baat samo daa bal ka daan sëgg bu sigee lu weex la def ko sëñ moo daa bal ma nga xamante ne siwal xadim ci boppam moo ko yónnee njaareem roof ko lam ko roof Cheikh moo daa bal ma nga xamante ne moom la maam ca njëkk a gis ci doom ju góor tudde ko dubbee ko Cheikh mu Cheikh Moudou Moustapha Mbacké Cheikh moo daa bal ma nga xamante ne man nga ne cool yi bari na waaye moo daa bal ca rek Cheikh moo daa bal ma nga xam ne boo demoon bay sukuraat lu ci diggante dund ak dee te dogalu yàlla egg seegut bu yàbbee guróom jox la nga wér Cheikh Modou Abala moo même wolu sëriñ ko soosuloo yónni alaaji baara ba alaaji baara ba bay Abdou Diop ne wol leen ma koso sëriñ ko su assulo di ñuk mel ni jàmbaar jamaam Cheikh Rafat Ba bi muridin ne groupe Cheikh Modou Abala Cheikh Modou Abala ne ko koso mu ne ko Mbàkke mu ne ko laggal togal ma ndogu te ba ba guddi Sering ko su asuloo jafe ndigal daal di jog rek fëx wuti fam jum, yalla dimbali ko mu tok ndogul andika, biñu bi julli fajar tek na ndogul ci kanam chamoda Bal chamoda Bal don gam don mam charno, ak don gam don sëñ touba mu càmp ay loxoom daawul lekk ba rek mu do bal o bal ku ñul da bu na mandi da champ mas compaat mas ne ko koso mo ne ko mbakke mo ne ko santina bu baax alhamdullilah waye koso bes bi nang ko fuk moy sa bes fonkal bes bi mooy sa bés loola su mujj mooy 1967. 67 1967 te booba nii xiiwal yi baawaane ci réew mi melutoon noonu nag léegi moom foo lamb daj te boobu amutoon waaye ko Kosso Sulo ba mu siggee ne ca loola di ko doxal di ko doxal di ko doxal di ko doxal at mu jot mu di ko def ànd koo ki bokkam nag ànd koog jullit yëpp nag ànd koog taalib bi yëpp woote woote goo xam ne dana wax ne koo xam ne mënoo dem bàyyi ko boo jógee woo ko ne ko acan dem ay kàddoom la bi mu ko defee nag ba 1998 sëriñ ko soo suloo moom suñu mu daa ball fii ci ndakaaru mu summi ba bëb coonaam ñu solal ko mbëbbu noof laayam jilli ko fii bu ko darul mooti fekk fa maam cernu maamam fekk fa Cheikh Modou Abala baayam yóbbu ko ca béréb yooyu ba nga xamante ne maam cernu nee na cheikhul khadim nee kep ku nu fa ngar ba sa taxaw ngar du la lal ngar waxatuma lal enen ngar du lal ñu bayyi fa serigne Koso Asulo mom serigne moda bal waye soxna si lo yaakar ne serigne Koso def ko ci ndëguli def na ko ci dana dana ci def leppam ba yalla lolé nak mo waral bis bi nga xamante moy ndogu yu sarsaara yi waye nak ñaar fukki fan ci wéru koor la serigne Koso Asulo waccu xam nga bis ba dil ci wat ñaar fukki fan ci weeru koor bés ba del siwaat bi bés ba del siwaatee nag di juróom-ñaari fan yaa ngi may dégga te te ñaar fukki juróom-ñaar yooyee ñaar fukki yooyee juróom-ñaar yooyee moom loo waroon doon ndogu yi xool nga yàlla lam ko defal ca loolee mooy jëf ju nangu laa tafaalu say an bi xayri isni fal isnu sartun fi xabuli sha'ni sëñ tubaan wax loolu ba leen jëfati lenn lu ànd ak ndigal ndax jëf balaan koy nangu day ànd ak ndigal nangu googu xamante ne sëriñ tubaan nangu na ko Seydou Damat nangu ko yàlla nangu ko moo tax mu wàccub liggéey ñaar fukkan ciw koor bés ba des waat ci ñaar ci fan mooy ñaar fukki fan juróom-ñaar muy ndagul ndogu sarsara yi di magalu sarsara ñu ci ñaanal sëriñ ko su asuloo ndax ñaan du doy isid duaa yanfaul mayta fil qubuur wa yanfaul hayya wa yujibul ujur ren mi ngi war a tombe altine gin jëm incha allahu taala di ñaar fukki fan juróom-ñaar incha allahu taala ca sarsara sarsara nag yaakaar naa ne addina wëngël képp xam nañu ko boo génnee daaru mooti loo mu weex sarsara lu leer nañ sarsaara nga xamante ne lamp yi ma nga ne nañ te booba jamono yow sëriñ ko suusuloo fi ta di tafa di ko taxawal booba kenn xalatul ay lamp waaye mu sukkandiku ci ko Cheikh a balla moom maam Cerno kon daal euh, ñu ngi sant ñëpp tey woo ñëpp di leen xamal ne nag bés boobu ñaar fukki fan la ak juróom-ñaar di altine gin jëm incha allahu taala da sarsaara te sëriñ Tuubaa waxoon na ne ina am ina alladina ilaa ina allasina ilaa sarsaara xat xasadu ziyaarati faraqu daarin aw saara ñi fekkoon sëriñ Tuubaa ca xomaak Seexul Xadim ne ñoom kat tàggoo nañu nu àdduna ak coono waaye ku ñëw sarsaara di nga tàggoo àdduna bakkaar àdduna ak coono waaye ki fi toog da Cheikh Modou Kara Mbacké moom sëriñ Kosso Sylo nga xamante ne sëriñ Kosso bu defoon fukk def na téeméer ku yokkut da ngaa wàññi waaye bala daa yokk Cheikh Kosso Sylo bu doon def fukk sëñ Modou Kara Koso def na ko téeméer daaw jéeg dafa ma wax ne Modou ma ne ko Mbacke mu ne lii ma def xeeb naa ko su ma sañoon danaa jox Cheikh Moustapha Absa ndogo yi ba noppi jiital gëttug nag ak gëtt yi xar ñu tàmbalee sarsara bu daru mooti lii mooy sama yéene Cheikh Modou Kara Mbacke yàlla na fi yàgg teewul waa ak i rakkam nag ak i rakkam ak i yëpp mu yu góor ak yu jigéen kenn seetaanu ko ak soxna yu tedd ya nga xam ne sëriñ ko su leen àndaloon ci liggéey te ba léegi yokkatunu dawunu rafunu ña nga fa toog rek di jaamu yàlla lii daal mooy li nga xayante ne moom la nu bëgg naa baaxee bokki jurit bokki taalibe yi xam ne bisub sëriñ ko soo ngoog ku mënta leble nag mën a fay bor